asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ñëw ànd ak yéen seen émission yu ñu jagleel ñuy faj ñi nga xamante ni yàlla moo leen baaxee ñuy taxaw si jàngoroy doomu aadama yi sëñ Alioune Fall yaakaar naa ne yàgg ngeen di koy gis Xibaar 24 ñaari at wala ñeenti at ñëwaat na ñu fas yéene tàmbaliwaat liggéey bi sëñ Alioune ñu lay nuyu. maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Babacar Samb ñu ngi leen fay nuyoo di nuyu mbokki àddina bi yëpp ak mbokki diaspora bi ak mbokki internet yëpp tabaarakallaahu. jërëjëf sëñ Alioune yàgg nga fi wane sa bopp si ay faj ndax li nga yor bare na am na ay fànn yu fasantikoo yooyu yëngu tey mën nga dellu si waat. waaw fas yéene nañ ca dellu si waat incha allahu rabbi man Serigne Alioune aaju ju faju las aslaar di wàllum ñaan ak faj mooy sama mbir mooy sama mission yaakaar naa seen sig bi bokk naa ci sëriñ si fi njëkk a wax ci communication ñu dalal leen yow nga doon ko baax lool doon ko laabir kon maa ngi leen di di leen nuyu baax a baax. Hmm. man lii sama yëngutu ak samay dal mooy ñaan ak faj may aju ju faju tabaarakallaahu sëñ Alioune aajo ju faju moom moom la ñëpp bëgg si wàllu lasaraar seen mbir foo ko teg ba nga xamante ni koo defal dina gis. xam nga man dama liggéey tur yàlla ba am ci cër jàngi xam-xam ci réew mi ak li ko wër ma naa Ibrahima dafa doon yenent doomi doon doomi yenent yàlla yónni ko kenn faalewu ko kenn wuysiwu ko waaye suñ borom yi baaxee te yor lépp da inna te wax ne innama amruhu isaarada sayan an yaqula la kun fa yakunu fa subhaana la si biyadihi malakutu kullu zayin wa ilayhi turjaun suratu yaasin ibrahima da suñ borom jox ko dara ca basmala muy addatu sarif 1290 waaye booy ñaan del ñaan ni ibrahima di ñaan a inna nasaluka min kulli amin farjan ci ñi xam dara ak ñi jàng arab ak ñi am xam-xam allahumma inna nas'aluka min kulli amin farjan wa min kulli dihin makhrajan wa min kulli usrin wa min kulli fahisatin sitran wa ala kulli khairin sabilan bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin loolu loo ci ñaan mu nangu waxuma bind waxuma kurus waxuma këyit ak aaju yu mën a doon muy jàngoro muy tawat di ubbeeku di kaaraange di bëgg a tukki di lépp hmm, li nga fa rek li loolu nag la soxla mhm. loolu la soxla parce que ah. nit moom sa dund pour ma nga am bànneex la sa sa sa dund nekk mhm. masha allah yow sa mbir yooyu noonu foo koy teg fu ma koy teg mooy dama tërbee tur yàlla ba am ci cër ba pare jànge xam-xam ci réew mi fii ci senegal fépp ma wër fii li ko dalee Saalum Malem Odar Siiwal Koungheul Koupantoum na Sabax Daaru Mbàppo Njaabo ay li wër réew mi yëpp ba Kaarang Sirmang Samba Gueye foo wër ci àdduna bi fii Sénégal dem naa muy Dagana war Soogi Añam Culoñ Añam Ziwal Tiriji Pador ba ni ngay duggee maatam ba ni ngay demee Kidira ba ni ngay demee Gambisara ba ni ngay demee Kunkante ba ni ngay demee Diobe ba ni ngay demee Wiringara ba ni ngay demee réew yu wër Sénégal di Gambie di Burkina Faso di Ghana di Togo di Congo di Nigeria kon rek man ci xam-xam bu leer laay dox muy alxuraan ak garab ak sunguf yaakaar naa li may wax noonu laa ko xamee boo demee Sigansor Bambali Médina Sowane Sédhiou Kolda Wiringara ba ni ngay demee Sigansor Bokat ba aussi fi buur bi nekk roi bi ba kër fu jaarumbe ba ni ngay demee Saldou Mingu ni nga dugg Bissau Euh, ay ay Saldiming ay Bisoro ay Caañu ko Ngore Bula ak Naafata Baafata ak tamit jàng jàng nag. waaw xam-xam rek la wuti. xam-xam rek laa wuti woon. xanaa mokkal nga. naa mokkal man yàlla ma may. ma nee naa la euh, Ibrahima euh, daa mujjoon sax di ñaane ne yaaxalal masrix wa yaaxalal maxrib xam nga masrix mooy penku maxrib bi mooy sow. ndeyjoor ak càmm mooy yamini simali daxawtu ko bi xodratalaahi taala wa bi lisaani seydina Ibrahima xali salaam istajibo lii waatuni bi ma fee di ko minam wàll dunya taxoon aw karaxan ah, Euh, sëñ Fall mu noonu gis ñaarat si ginnaaw. ak hmm. bii wute na. ñame nga micro bi. gën nga am fit te wala nga sa bopp. man wees naa foofu li nga wax man wees naa foofu nee naa la man fi ma toll ci aslaar di ñaan di bind ay yaasi nag dindi indi su isa waxaate yëpp maa ngi koy def ngir am ngir jël sama temps ak def ci tur yàlla toog biir guddi ak def leneen waaye rek yàlla ma may. boo ma wooyee rek bu ma la déggee téléphone rek moom naa xam naa sa yitte ak ni nga toll ah, na di noonu rek dama koy def am na ñoom dañuy foto seen loxo ko maa leen koy wax am ñoom dañuy jàpp percose ma wax rek ku ma neex loolu ko def xam-xam laa ko am moom bëgguma yëpp laa nangul ñëpp am xam-xam waaye man ku ma la Aliou amatul ndax maa a min réew ñëpp maa gën a da biir réew yi ko war te musuma tase gone gu nekk jàng xam-xam ci ci réew yi kon sëriñ si day font sëriñ si ndaw si sëriñ si fontoon waaye bokkuñu ñi ñu bokkuñu cër yi bokkul juróomi baaraam yi ni mu wóotee loolu la ñi ñu wóotee wax naa ko léegi yam mii neg simaali daxatukum bi xudrat taxalaa wa bilisaan seydina ibrahima alayhi salaam istaji booli wa atuni bi ma faydikum min am wal dunya tawxan aw karaxan xam nga tur yàlla yi dafa bari ba pare wóotee xam nga xayul xuyum ak xayun xuyum bokkul te daanuroo fii nii bari ñoo xam ne xamuñu xayun xuyum am na ñoo xam ne xam nañ xayul xuyum xayul xuyum 163 la xayun ah, xayul xuyum ba nopp ci boppam dafa amaat tasam talsam mooy pour booy booy tudd di naan yaa yaa xëy yaa wax ci axlalun yaa axlalun tam wax yaa axlalun tam xadaa mën nga am juróom-ñaari téeméer wala nga am juróom-ñaari junni ci baat bu gàtt boobu da ngay jàngale wala da nga damay jàngale damay jàng damay jàng par di jàngale ñu xamul xay xëyun xuyam googu ma wax boo ne yaa axlalun tam xadaanu am nga xëyun xuyam waaye am nooy ñaane daa am ñaanukaay ñaanukaay xam nga ñaan ñaanukaay gi mooy duxaawu ba par day am maxsal maxsal mooy ubbi ñaanukaay gi mooy allahumma inni as'aluka nga jàng yow du sotti wala nga jàng instant mooy faj aajo sëñ Aliou est-ce ngi faj aajo yi maa ngi faj aajo yi kay ñii ñaa ngi ma woo faj sama aajo pour fii nii yàgg ñaata yoon laa ñëw xibaar 24 mm-hmm. ay yoon yoon laa fi ñëw ba ma fi ñëw ab sëriñ ñëw fi kenn teewu fi

man li may ñëngu li may yëngu li may yëngu mooy ubbeeku. bari na bayra dama ci yëngu. Hmm. kaaraange dama ci yëngu. bëgg a tukki dama ci yëngu. yaa ma dégg ci wàllu lasdaar ndomba gi mooy batadun. batadun batadun. batadun la mu doon. batadun kaaraange la goo xam ne rab saytaane ca dëmm fi lay bàyyi du man ci yow dara batadun deru béy ñu leen koy ëwee ñaari gaaw lay doon. lii mooy batadun ku ko takk yàlla dana la musal ci saytaan musal la ci ci ci ci yu jafe-jafe. koy defaree. ma maa xam la ma koy defee ci kaw kàddu ak la ma woowee rek. Hmm. waaw lii mooy batatu. Euh, léegi gars yi li ñu bëgg mooy. aaru ubbeeku ngay yóotu benn mbir mu jot ngay xëccoo nangu jël ko am kaaraange du manière générale sa vie neex nga dund dund bu yemb loolu lépp dafa bokk si li ngay def. mais yow est-ce que war nga si ay preuve parce que ay duñ bëgg léegi preuve li bëgg mooy duñ mën teg loxo man wees naa preuve yàlla ma dimba ci reslaar ma jàng am xam-xam yàlla baaxewoon ma leen ma doon leen doon safali si doon ab sëriñ ba pare tërbee tur yàlla tërbee ñaan dem gëstu ji jàngi xam-xam xam nga ni may lime dëkk yi nii ak réew yi lu ma fa yóbbu ñoo koy loolu yóbbu woon foo ma tudd ko xam moo fa yóbbu Fuuta ñoo fa xam ci sëriñ kenn daa xam ni toll Ceerno Sama Sa nga fa ñeneen a nga fa digu mën la añoom ci lañ añoom si lewal tiri ji ba a soogi min naa ko bari waaye fu ma la foo tudd dégg ma dem fa ñun la àlli dem na fa xam-xam la wuti jayuma seetuma taalibe defuma leneen xam-xam lay wuti waaw lii mooy batadun képp ko takk da nga belende yàlla musal na la ci douane musal la ci presse musal la ci gendarmerie musal la ci lu bon musal la Hmm. waaw wallaay des ah, wallaay sànq wax nga boo tudd ay tukkee yooyu. waaw da nga yëngu si wàllu boobu tukki. ah ñu bëgg tukki. ñu bëgg tukki dama ci yëngutu yor naa lu ci gaaw lool bu ma la ñaanalee defal la sarax wax la nga jox kayit booy xëy joxe kayit yi kayit papier bu yar boo ñaanee 800 am ko. Hmm? yàlla xam na ko. loolu yomb na du yombut de da ngay toog ci tur yàlla jël turu nit ki jal ba jàng bind la ngay bind moo xam ab wàqat wàqal la moo xam suy na naas la moo xam alam nasara moo xam surat fataxi la hmm. moo xam wala yesumi ko mën a naas ci la man bari na fu ma dem réew mi kay ma foo réew mooy tudd yu bëree bëri dem naa fa bari na réew ma dem ah yëg naa avion voilà na ñëw si beneen fànn sëñ Aliou da nga dëgër fit man man nag da nga ma jaaxal sa fit gi waaw fit fit fit gi ngay indaale man da xam nga man sëñ Aliou lan ma tudde tudde ma sama maam ju baax ja sëñ Aliou waaw kon xam nga fit moom ci man la war a tàmbalee ci man la war a yem hmm. faaw maam fit rek yoolu yàlla ma ko baaxee waajur yi noonu la mel maam ji noonu la mel ñi tukki euh, euh, lang lang fa amuñu mënuñ ñibbis na am ñu kayit yooyu yëpp buñ jokkoo nga woo ma insha allahu rabbi boo bëggee sa mbir boo wooyee rek dinaa ma jëflante ak sama numéro mooy 77 888 89 99 78 290 41 40. mais yéen seen biir dafa bari ñuy naxaate am ñoo xam te ne bu ñu jotee encaisse dañuy fay seen portable. non man doxuma noonu non man doxuma yow ñaata at nga ma xam ma nekk ci Lasdar ñaata at la yow. waxal déet yow sa diggante client yi du mag yow kañ man kay sama diggante client yi ci lu leer laa nekk ku ma woo da nga ma jot jëflante ak man man ngay jot amu intermédiaire waaye rek ku ma woo da nga man ci ceek ci ceek ci njekk ak teranga da ma xool say mbir wala nga yónni photo sa loxo ma ko à waaw dama koy foo mën a nekk muy Europe di Italie di France di Allemagne di Australie foo ma woo boo ma woowee naa laa seeta say mbir hmm. ci minute gàtt wax la sa àddina li weesu li ñi bëgg a siiw tim bayra nga leen defar hmm. ah suñu ne naa seeg alam nasar rek bayral as naag sunguf yi nga xam ak garab yi nga xam ak li nga jàng ci xam-xam yëngu sunguf damay yëngu ci sunguf damay yëngu ci téere alxuraan yi di yëngu ci xilmu nujoob xam xam xam kamatara xam mu salas xam mu rabba xam leneen raslaara boo déggee sëriñ si bari si moom képp ku fer ijji bu pare gëstu ci nga kenn mun la cay génnee man gësuma kenn yàquma kenn waaye ku fer ijji gëstu jàng xam-xam aslaar ci nga jàng alxuraan teg ci hmm. waaw waaw waaw ah man de yéemu naa sëñ bi. lii laa yëngu te damay yëngu ci kaaraange damay yëngu ci tàkk tiir sax am naa ko. maanaam dóor bal wala wala paaka wala jaas yooyu yëpp dama koy am. tul mooy tul. tul waaw. fital jaasi bal bul tooñ bul tooñ. mu ne. waaye doo tooñ doo tooñ. waxuma la nga tooñ de man laal sama gaalaaji gaalaaji tul ku ma ko du jox mooy ndawal buur ku nekk ci ay commanda ay nangam nangam wala douane yooyu du leen jox sama ñoo ñoo gën a itteewoo di. ñooñu du galaaj. lu du ma leen du jox sama galaaj man da sa garage moo sama garage mooy bañ jox ab quoi commanda wala ab douane wala leneen ñooñ duma leen jox ah, militaire moom mën na ko def day aar aar sa réew mën nga ko def mën nga ko jox jàppale rek ñoom dañ nekk. non non garage googu ba baax ci man. ah bon du baax léegi ñu ñëw si jàngoro yi ay kattan ak genre yooyu. jàngoro kattan am naa ci garab yu wér am naa estomac gu wér am naa ndoxum siti am naa omerite am naa cholestérol am naa fibro am naa supis am naa yu bëree bëri yoo xam ne mënuñu ko lim. tension ah, ah, yow lépp nga mën. am na yu ma mën de am na yu ma mën de. yi ma man laa lay wax loo dégg ma tudd ko nan nangam rek mën naa ko li ma mën a mën a mën dégg sa gars yi lii moom dama koy def lii yu gara yu dama ko mën di damaa jàng xam hmm? foo tudd rek dem naa fa ngir xam-xam voilà léegi na ñëw si beneen affaire mooy euh, jigéen ñi am ay far rab ak genre yooyu jigéen ñu far am far fax na xam naa mu tëleen wala genre yooyu daal. waaw loolu day am xam nga rab bu xasee ba nekk ci yow rab mën naa laa yàqal doo am borom kër mën naa laa yàqal booy liggéey euh, liggéey bi du dox nga gaaw mer gaaw a tàng lu la dig mu mu tasaaroo yaakaar yi tas loolu rab da koy def da ko yàq waaye rab rek moom xam nga lu yomb koy dindi ci ku ko man ak ku jàng xam-xam man yi ma ciy joxee day ànd ak nee ne ginaar ordinaire ñu weer ko ba mu am alxames bi diis ba 10 ñu dëbb ko ba pare jigéen goo xam ne xamagut góor jànq bu ndaw laal moo koy dëbb ba pare ñu sangoo ko ci ñetti alxamis insha allahu rabbi da nga sa tàggoo rab mhm. Mhm. alxuraan bu wér la ak sungu fii ñu koy booleel. ku la bëgg jot wala fan ngay nekk ci réew mi. man fi may nekk ci réew mi dinaa nekk euh, euh, fii Fadia dinaa nekk euh, Kaolack dinaa nekk Touba Mbacké gii dinaa nekk dëkk bu naan Kaarang dinaa fay dem bari na daal fu may nekk ci réew mi ak yenn. Ah. ah yow de moom seen nguur réew mi. waaw waaye loolu noo koy organisé ba chaque jour nga war nekk. maa xam semaine bu ne fa may nekk ak fii fa may nekk fa may nekk loolu sama programme bopp la. voilà mhm. euh, bu fekkente nga tey looy tëjee looy wax. bi. lu may tëjee émission bi ñi faral di def. istighfar ak allahumma salli ala sayyidina muhammad wa salim boo naanee sàngara boo ne allahumma salli ala sayyidina muhammad wa salim ñu nangu ko boo njaalo boo ne allahumma salli ala sayyidina muhammad

dama dégg ni ñi nekk ci bon bon ba sax war nañ di ko def man ndax mu génne la ci yooyu istifa war nga di ko def alhamdulilahi war nga di ko def ci sant yàlla yaa karim yaa raximu aji tedd aji xéwal dañ ko war di def isa ja nasrullahi bi hamdi rabbika wastaxfirhu innahu kaana tawwaban da ngay julli ñaari rakka jàng fatiha jàng alam nasara boo pare rakka ba ci nga jàng isa ja def 19 fois euh, isa ja ku koy def maanaam bu dee ki ngay liggéeyal wala sa diggante borom kër wala naqar naqar yàlla mën naa saafara yëpp man maay aaj ju faju lu bare bare yàlla dimbali ma man ko kon yaa ko baaxee askan wi léegi nag da nga ñëw si affaire àdduna nga tëjee foofu rek am nga loo bëggoon sànni benn message affaire àdduna bi li ñaan yàlla def ci réew mi jàmm ak salaam képp kuy digal Macky Sall nga digal ko lu baax mu tàggoo te dem ndax ñaari mandat la waxoon te man na 2024 Ousmane Sonko ndaw ñu jox nañ ko bopp mag ñu na fukki at ak juróom benn ba diggu fukki at ak juróom ci tapale wala lekkul léewul ñu giñ ko affaire jigéen dara du ci dëgg ñu wut bi ko ci affaire Mambay ñaa nan ko may jàmm Macky Sall may ko jàmm mu ëppee su bokk ci élection yi dem ndax yàlla dana ko fal président insha allahu rabbi te kilifa yëpp jox nañ ko bokk ñu bari jox nañ ko bopp waaye Macky Sall laa dafa war a tàggoo dem ci jàmm ak salaam réew mi fin na bañ fee am te li jigaat keneen waaw ya waaye du ko jóg rek nga ne nangam ak nangam yow waxal nga ko sa bopp Karim Wade noonu ko génne ko réew mi Khalifa Sall noonu keneen ku ba ku jóg rek nga ko réew te yaa wax toogoon ak Sidy Lamine Niass yàggu dara nga ne Moussa ak Firawna ba fiir xaw na defe ne mooy buur mooy buum mooy bumi yàlla indil na ko doom joo xam ne amul ndey amul bàyyi te moo ko sóob ci ndox mi kon nag loolu boo ci xalaatee rek war ngaa mën a bàyyi troisième mandat ñi ñu digal la nga tàggoo te dem sa liggéey bari na loo def rek loo xam ne toppante ak tëjante waaye liggéey na réew mi moom waaye rek lu baree bari ñii ñi dokkaruñ ci laal kuy final nit ñi la senegal yi booy final li Max li Sonko am ak bés bi mu ak fi mu toll ci politique Macky Sall moo ko may moo ko may de Ousmane Sonko tollu woon yi waaye Macky Sall moo ko final la ku jóg la moo ko may kon tax man politique ma politique sama yu néew Ousmane say ay wëllër lan mu xam ma ma xam ko baax baax. koro ba dem na ngay politique. politique ma de non non non non koro ba mu nuyoo euh, Darou Salaam Kambourou Serigne Ismaïla Diouf la ñaanal ci njabootu sëriñ bi la ba ma ko ñaanal léegi ñuy waxtaan yàgg mu ne ma yaayam Xadi Ngom la tudd nga dëkk euh, xombal alaaji rawaan ngom mooy maam fii ñu doomi soxna la ñëpp di sëriñ ba pare man xam naa dëkkam xam bambali xam mit na suwaane xam mor saasum gam dëkk ca biñonda mu ne ma yow yaa ma gën a mën réew ma ne ko dem naa Carrefour Diaroumé dem naa eh, Bokat dem naa Tilène dem naa Cap Skirring dem naa Ziguinchor dem naa Saly mi ngi dugg Bissau jaar naa ci gaal gi dem Sédhiou dugg Bissau ma a ko man lu mu la doon wuti fa ma ne ko xam-xam laa doon wuti te yàgg naa ci 2008 2009 ba léegi maa ngi maa ngi gëstu xam-xam adduna bi rek yëpp damaa bëgg léegi ñu xam Serigne Aliou Aji Faji ki bëri yërmande ki nga xam ne mooy Aji Faji ñuy jokkoo ak moom waxuma rek di seetaan affaire daal di jàll da may woo ñu jëflante ma ñaan la yàlla mën a jàppale seen mbir jërë ngeen jëf tabaarakallaa Babacar sant naa baax gërëm la di nuyu waa àddina bépp kilifa di nuyu yàlla yàggal leen tëwral leen ndugg ci koor gi bismillahi rahmaani génne ko ci alhamdulilahi rabbil alamin merci beaucoup jërëjëf borom aju faju numéro baa kon da koy wor incha allah seen aju faju 78 290 41 41 77 888 89 99 jërë